na ci jëwriñu ñu ak xan ayna nasrul muminina señ Amadou tay ñu ñoo fekk leen ngeen magal guddi gi laylatu khadri gi señ Touba nan la ko doon taxawee. dañ xana fa fedd ni rek li nga xam yag nañ ko taxawal fi ci daara wakkaana ak ayna nasrul muminina di leen xamal ne dañuy wat di sant suñu borom ndax li ñu taxawal ni ñaan gu nangula ñaan gu nangu moy 1989 ba ñu sëriñ Saliou Mbacké yàlla na suñu borom yokk leeram taas ñu si barke joxe tur wi di wakana xaqan eleeram na solo moom nii na ba tey ji yàlla def na ñu ngi doxal bis bi ña nga xam ne ñoo sancoon daara ji tàmbali woon ca Touba Medina rue 13 angle 8 jóge fa ñëw rue 15 angle 16 am ay mag am ñu jiitu ak ñoo xam ñoo ko ba ji suñu borom def fii tey ñu nekk fii tey si rue 19 angle 4 di ko taxawal ba yàlla may ñu am ay kuréel kuréel kuréelu xam-xam am na fi gis ngeen ki waroon waxtaane waxtaan bi di sëriñ bandes bande seen yàlla def mu am gàllankoor mais am na ci daari ji ñoo xam ne wuutu nañ ko ci waxtaanu guddi loolu ak cant la tout tànk yi ngeen gisit ñu jàng léegi bokk nañu ñenn ci kuréelu daara ji ba am kuréel 1 kuréel 2 kurel 3 te kurel 2 moom ngeen gis ni ni waaj a jàng mhm. bu ñu jàngee ba pare kurel kuréel 1 di jël loolu yëpp nag dañ koy sant suñu borom ndax lu ñu yàgg ñaan la mhm. ndax ba ñu daara ji ba léegi li ñu doon ñaan sëñ bi lu mu ñu waxoon mooy ñu bañ gestu mhm. ndax amoon nañ fi suñu wasila ju baax ñu wasi wax Cheikh wasar, Sarr jaami Serigne Touba dafa am ay yu ñu joxoon ne leen boo leen nekkee ci yoonu sëñ bi di doh ni ngeen kui di dox du kuy bay bayub dex te bañ a bay bayub joor nga bayub joor bu ko waxee boo ko boo ci tegee jéego da ngay gis sa liggéey fi mu toll te su boobaa mën nga naagu waaye bayub dex foo samp sa gopp boo yëkkatee doo xam fa nga sampoon kon di dox jéego yu bari te it doo mën a xam sa liggéey fu mu toll fekk foofu na mm. loolu tey defe naa moo ñu may ñu toll fi lan ngay tëjee rek ak dénk ko mbok taalibe yi xanaa rek di dolliwaat di sant mbooloo mi nga xam ne am na si ay jëmm yoo xam ne fii mën naa la wax ne ba wakaana aqan dee wakaana aqan ba léegi dañuy ànd ak ñun guddi leelatul xadri di ànd ak ñun guddi gàmmu ñii di jóge ba ay Thiès ñii di jóge ba ay Tëngéej ak feneen ci Sénégal ngir sopp gi ñu sopp taxawaay ak jàngu wakaan ak ay la naa nasulu moom nii na ñuy it dolliwaat rek di fàttaliku ñi nga xam ne suñu ay jëwriñ la woon nekkoon fi ak ay mbokku taalibe ko mel ni Baye Gabu Diop xam naa fekkoon ngeen ko fi at yi ñu weesu waaye suñu borom def ñu jiitu ñu leen ñu ñaanal suñu borom jagleel leen barzaqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen tamit liggéey bi ngeen xam ne yéen a ngi koy liggéey suñu gox bii di Medina teg nañ ci bët du ñu def lu di leen ñaanal suñu borom yokk leen kattanal leen ba fa ngeen bëgg a yegg li seen liggéey bi ci wàllu télécommunication ak information ci Medina mu gën a fooxo incha allah. مطائم المدام شبير يوم الدين بالبر Lord. asalaamaaleykum mbokku taalibe mbokku jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen béggee tey nag ñu ngi fii ci Medina mu tomb ak euh, laylatu xadri muridi euh, ñu nekk daara wakkaan ak ñu ngi taxaw ak jóori yi jëwriñ ñu ngi leen nuyu. ñu ngi leen di baax a baax. waa tur naka la rek nga présenté. tur bi Serigne Seye. waaw Serigne tey ñu fekk leen fii wakkaan ak euh, naka ngeen dundee bis bi tey ak organisation bi nan la demee. waaw bis bi nag niñ ko dundee moom niñ ko dundal rek. ne sëriñ bi bëggee ñu dundal ko bis yi ñu am yëpp ndax temps bi mooy bis sunnati lañ doon wax ci gàmm waaye bis bi noonu lañ ko dundalee ci sunna bi ñu xëyee door nañ fi ay xéwal yoo xam ne mbooloo mi fi nekkoon ci organisation yi ci lañ dogoo séddale ñi nekkoon ci koñ bi ak gox bi yëpp ci lañ dogoo togg ay reer ak ay xam ne moom lañ bëgg a jox mbokk taay bi fi teew ci ay xëdd naka noonu tamit jotaayu gis ngeen ko ñu di wàccee ay ñu wàccee kaamil ci xanam bu noppee dañ jàng xat muy amoon nañ fi waxtaan ci guddi gi kuréel tamit ni kuréel bu jóg sa morom toog ci wàllu xasida yi berndeel nit ñi ci guddi gi waaw ngeen ko doon ànd ak tamit seen i mbokki taalibe ñu jiitu ñu ngi leen di dégg léegi ñu leen di eh, wax seen tur di leen ñaanal tamit nga mën ñu limal ñooñu rek waaw ñun moom dañuy sawar wax ci ñoom ndax seen liggéey dafa rëy lool ci daara ji te ki ñu ci njëkk tudd mooy suñu jëriñ mi nga xam ne mu nekkoon jëriñ daara ji Babacar Gabou Diop mais naa ñëpp xamoon ko mu nekkoon jëmm ju baax lool mm. amuk taalibe nekkoon social serviable maanaam soloon ci récupérer ndaw ñi ak former leen réinsérer leen taxawu leen ba ñu mën doon ñu jëriñ société jëriñ nit ñi jëriñ seen bopp ñu ñaanal suñu borom dolli ko njëggal ak yërmande waaye ku mel ne Sadio Fall it nekkoon tout tànk waaye nekkoon ku ku amoon yitte amoon jëriñ ci nit ñi ku mel ni Aly tamit nekkoon noonu Serigne Gueye Abdou Khadir Thiam ñii ñun ak ñoom dañoo fi waaye seen jëf dafa marqué liggéey bi ndax seen taxawaay te nekkoon ne ñu am exemplarité la a roy lañ doon nekk ay moroom yoo xam ne fu ne mën nañu fa présenté ndax doxin bu rafet ak melukaan yi Serigne bëggoon taalib mel ko ñu mel ko waaw ah, ci société bi ñu nekkoon it bañ fa jógee ñëpp yëg nañ ne am na manqué nañ fi daal ndax doxin bu rafet ak njëriñ ñu amoon doomu aadama yi. Hmm. ban appel ngay lancé rek ci guddi laylatu xadre gi. li ñuy ñaan rek te di ko lancé ñëpp ñu bokk suux suuxat jàmm ji ñaan suñu borom doolu jàmm ci réew mi te fajal suñu aajo zahiran wa baatinan. بالبر والمداد أنا وزانا وجاهبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أنا وزانا وجاهبا بلا حداد يا خير بالبر والمداد أهلا وسهلا وسهلا

وزيدان بمامه وموجبا لزام إفسان بزفاني وموجبا ربي من جود منكر من نافع سيادي لا شر من كريم من ذيك جاد لنا بليلة القدر زاد الفال والفال بك هم فزاد مالي وكن حبيبي يا يوم الخول والكمال إني أحبك يا شرس يا من بلا حبا بلا هدادي